jaajëfal bu baax a baax ba léegi rek ñu ngi ci signature contrat journée Sidi Diakhaté production ñu jëm ci dimanche le 19 mars fii ci arène grand combat a dox ci diggante Thiatou bu am solo bu ci amaat dox ci diggante ki nga xam ne mooy Kaw Gourdin ak Ndigal mais également ki xam ne mooy Pambay bu Thiès ak tir boobu Tiwaawoon tamit ñu ngi ci war a bëre mais combat bi ñu taxawal nii mooy diggante ki nga xam ne mooy Kélédor bu Cité ñax ak ki nga xam ne mooy ceeg bu 50 mais fay nañ la Lamine <coughs> mhm. di la ziar di la sant di la gërëm di jox ñëpp seen wàccuwaay di gërëm sama waa gox kilomètre cinquante gi ma jógee di gërëm autorité yi di gërëm sama grand sama xarit muy Mamadou Sey mbay Doudou Sey di ci teg rakam bële muy Matar nga xam ne fu ñu dee fu ñu xëy mu yendoo foofu mhm. di ko sant di ko gërëm torop mhm. merci Clédor nuyu nañ la waaw onze billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yenente bi sant suñu ñaari waajur di nuyu waa cees yëpp cees gi ñu jógee ñu leen nuyu waa Cité Ñax waaw di nuyu waa man na Fall waa cees yëpp mbaa Mbambara jàmm gën di nuyu sama turandoo Kélédoor Fall bu baax a baax Kélédoor maa ngi koy nuyu bu baax di ko wax ne ko am naa combat le 19 mars incha allah sama diggante ak Cheikh Senghor waaw di fii ci arène nationale waaw di ci nuyu suñu père Sidi Diakhaté moom mi nga xam ne moo jàpp suñu loxo indi fii nii Euh, fii nii ci arène nationale ñu fas yéene fee bëree di ko ñaanal jàmm baax a baax di nuyu sama tête de file Matar Mbaye ambulance mhm. di nuyu waa équipe bëgg sa waajur yëpp ñi nekk ñëpp maa naa ko bu baax noo ko xamee dama ko seetaan muy bëre ba mu nekk nii maa ko fa jiitu muy bëgg sa waajur googu loolu tax nga ñemee ko ba jël ko non man nag yàlla dafa dogal aw ma lu may ragal ci adversaire képp ku ma tollal no pour man maa la barki Seydina ba ci kele door mii nii. ba ci kele door parce que même bi muy bëreeg booy sëbi maa ngi taxaw situation. kon revanche ngay jël si. non pas revanche parce que kii sëbi la man Igri Kayaar laa nekk Mor Mbaye. kële moom foofu ba muy Matar Mbaye mële. mais 50 nga rek yéen a. taxawoo mais la mais loolu dara. sëbi raison de Thiès la ñun waar Thiès la bokk raison de Thiès lañ bokk. mais maa ngi ci biir ruq bi raay ba ba ndox ma kee muy Matar Mbaye. li nga bëreeg jël de jël mën nañ koo xaar sa diggante kele lu raw loolu mooy ñëw parce que ñun ay xale lañ bu ñëwee dañuy wane suñu bopp def fulla ak fayda dem ñi bi Clédor lan moo tax nga jël ceeg non ceeg moom man tax moom nee daf maa xam waaye man xawuma ko tax man moom xawuma ko wax dëgg yàlla loolu wër na ah loolu ñun dañuy compétir ñun ay mbëru mbapat lañ dañuy compétir waaw di di woo waa Touba <laughs> di woo waa sa adversaire bi waaw non moom li ma koy wax moom wax na li muy wax moom tontu bi fii la le 19 incha allah ceeg moom nee na xam na ma bu baax a baax a baax man xawuma ko mais li wér te wóor mooy boobaa incha allah lépp dina leer di ñaan yàlla yàlla mi dara teewul mu may ma ndam ci kawam jour le 19 incha allah. bii di sa premier combat Dakar. waaw sant yàlla bu baax a baax a baax nag <laughs> combat Dakar loolu dama ciy kontaan baax a baax di woo waa man na faal yëpp am di Baye Fall di kenn ci man am di maa ngi koy woo baax a baax ak ki ma àndal Aliou Mbada moom mooy sama lépp moom may tëggal moom may defa lépp moo ma indi tey fii nii waaw Cheikh Junior moom li ma koy wax bëriwul dama ne ko li ci kanam raw li bët incha allah donga daara yaa ngi ñëw Mm-hmm. côté mobilisation li ñu xaaroon sa combat bu mujj est-ce que mën nañ koo xaaraat tey jii nii. lu ko raw li ko raw di nuyu sama trondo Kédor faal waaw moom moo may defal lépp moo may jàppale. waaw di nuyu Habib ñaa di nuyu Mamadou Lamine Sankare ak Pape leen woo ci combat bi parce que ñoom samay combat dañ jàpp bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di nuyu sama entraîneur Père Laye Ndiaye ak ay doomam di nuyu sama papa ak sama yaay maa leen nuyu baax a baax Père Ousmane Diouf Père Boubacar Mangane Assane Diouf ñoom ñëpp maa leen woo waa Sida yëpp nag maa leen woo waa dëkkandoo a ceeg ñu bàyyi nga woote. waaw man nag ñi njëkk a woo mooy sama grand Mamadou Seye Mbaye ak Mataan Mële nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay ma gënal leen seen rakk yi ñu bokkal ndey ak baay te loolu mënoon na leen ci bañ a fekk lu ma soxla ay rakam soxla leen ñu jël ko jox ma ko bàyyi seen i rak su loolu passé may woo suñu maire Momar Ciss di woo Ibou juuf di woo Basirou Diong Cheikh Dioum di woo waa cinq kilomètre cinquante di kii yëpp mbaaru yàpp yi jaay ko jën yi di woo waa marché maire yi jaay clémentine yëpp samay maire lañ combat bii nii non sama bakkan laaj teg. ajo ñu bàyyi ngeen joxante loxo. diwoo woo di di woo sama président fan club Abdou Latif Diallo maa ngi koy woo diwoo woo présidente bi Fama Dangoura di ko woo baax di woo waa marché Moussante yëpp maa leen woo bu baax baax waa marché bu mag maa ngi woo parce que ñoom dañuy jàpp ci combat bi di woo waa Tamba waa Daara Jaxate maa leen di woo bu baax a baax a baax Jaxate suñu lépp la diwoo woo euh, waa Touba di woo euh, kenn ci man suñu ëboo Mbacke di woo sëñ Abou Mbacke maa baax ak sëñ Modou Moustapha maa leen woo bu baax waa Touba waa Dakar ñëpp daal ku ma tudd sa rek xamal ne xel moo matul waaw di ñaan ñi may ñi may jàppale di ma di ma ñaanal yëpp ci bi ñu ñëw incha allah parce que combat bi combat bu mag la Sidi Père Sidi Diakhaté di ko ñaanal mu bëgg yàlla defal ko ko parce que tamit lii lu rëy la di nuyu sama euh, tête de file Matar Mbaye ambulance bu baax a baax a baax di ko woone ko sa poulain am na combat euh, le 19 mars incha allah. Hmm. mais kii kele door hmm. da nga ni kii yàpp muy jaay kilomètre cinquante duuful ndax jënd nga fa mais yàpp dafa desay duuf wax ko ko mu dégg ba xam mu <laughs> non père kii nii père kii day xaar kii parewul démb nag bi ma rey rek nag bi nag hmm. boo ko gisee xam ne lekkul yàpp xamul sax ni ñu waxee kii lekkul yàpp kii nii billaahi lekkul yàpp te bu la 19 mu xam ne lekkul yàpp billaahi wallaay talaay lekkul yàpp su loo nee ñëw na 50 pour jël yàpp non lekkul yàpp kii daa lekk yàpp. non daa mel daa mel ni da koo ñu daa ñu mu wut ceeb. mais sa xam nga xam nga xam nga tey xam nga xam nga xam nga wax ju bëri jëru ko wax ju bëri jëru ko ceeb dama bëgg mu def ndànk man maa la mën maa la ëpp doole. ceeb mi nii maa kii nii kii du ma moom dama man Père Sidi dama ne ko woon dama ne ko dama ne ko dama ne ko dama ne Père Sidi damaa bëgg mu wutal ma adversaire de taille te bu le 19 passé dinañ xam ne kii du sama adversaire de taille am na man Père mbër yi dëkk fii ci biir dëkk bi laa soxla nga jox ma ko ponkal yi ne fii ci biir dëkk bi ñoom laa soxla mais kii du ma ak moom Père kii mag la. tegaa génn ci teeg ba pare Père donga daara yaa ngi ñëw te xuy ma dama ne la ñun ay donga daara la. li ngeen di teg nii ba pare. mais soo lijjanti luur yi nekk fii. da ngay liggéeyanti ñuy bokk amoo doole. loolu moo amoo doole amoo xaalis boo feebaree ay ren ngay xooj di ko naan man xaalis mais am naa ñu am xaalis. amoo doole amoo xaalis man sama man sama turandoo Clédor Fall déglu ma dama ne sama turandoo man sama turandoo Clédor Fall moo may defal lépp man moo may defal Clédor Fall moo may defal lépp waaw Mamadou Lamine Sangaré Habib Niang Ablaye Dieye ay Ablaye Dieye ay ñoom Cheikh Lo directeur ay monsieur le maire Ousmane Diagne ñoom ñoo may jàppale monsieur le maire Ousmane Diagne ah Habib Niang Kelle Dóor moo may defal sama lépp waaye da am monsieur le maire nga an man maa am maître Ousmane man maa am maître Ousmane am Cheikh Lo am Habib Niang